والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي ني سيتان تي سين تيليفزيون سين تي في نيغي لين دي نوي دي لين زياره دي لين بالواق دي نيان سونو بوروم بولي ني جيغل دي نيان suñu directeur général bi yàlla dolli ko jàppale dolli ko suture itam defal ko ñu fiy liggéey ñëpp nuyu suñu techniciens yi ñu nekkal ak suñu caméraman yi soxna Germaine ñu nuyu ko ak alaay cuun xéewal Cheikh Abdourahman ak Chérif Beytin Mamour moom itam ñu nuyu ko bu baax soxna Anta ak Baye Mour Maxtaar mu mel ni rek ginnaaw bu ñu leen nuyoo ziyaare leen ñu ngi leen di delloo siwaat rek ci téere bi nga xam ni ci lañ war a waxtaanee tey waaye ñu fàttali leen rek anta ne alxames ak jàmm ci la bés bu rëy ci Sénégal muy maam jaara së mu nekk màggalu poroxaan wax naa ni journée de la femme waroon nañ ko def ci ñaari accès benn bi mooy jël ñu mel ni maam jaara ak ñoom maam Fawad Duwel ak ñu mel noonu waxtaan seen démb ndax jigéen ñi man cee tibb bokk na ci itam lañ ca waroon def mooy dem ci kaso yi am na seen nawli jigéen yu ñu tëj ñu dem fekk leen fa ak teraanga waxuma ne defuñu ko dama ne buñ ko defee ci journée bi la bokk wan leen ni ay jigéen ngeen dogalu yàlla dal ci seen kaw waaye ñoo yéen bokk bés bi kon ñaar yi rek la war a ëmb Cheikh El nag da daan wax lu am solo maam jaara boo dégloo Germaine histoire am histoire jaara boo ko dégloo da ngay defee ne dund na soixante ans wala cent ans or que Anta maam jaara fanweeri at ak ñett la dund muy 33 ans xoolal li ci liggéey ci fanweeri at ak ñett gis nga nit du soxor boo soxoree li lay deferal doo ko gis boo soxoree li lay may doo ko gis seetal tey bu bu alxames tey jii nga fas yéenee de tukki oto bu la indi dakaar dana la të oto bu la yóbbu feneen dana la të ñépp ñu nga jëm poroxaan ci benn jigéen moo tax mu daan wax maam Mor Anta Sali ne ko lenn rek laa lay wax moor lépp loo bëgg lool laay wër lépp loo bañ loola laay moytu moo tax ba doom ja màgge Cheikhul Xaddim wax ja soriwu ca bañ ko laajee rabbana atina fi dunya xasanatan daa muuñ ñu ne ko ma xasanatu dunya mu ne imraatan saalihatan am ku ne patax dugg ca ne ko xanaa ku mel ni maam jaara mu xam ne yaayama mu ne pat ne taayi atan daal di sëgg sëriñ Touba nee na adduna li ci dàq gën cee neex mooy yàlla boole la jigéen ju baax jigéen ju yiw jigéen ju la déggal sañ na ko wax parce que ku sa yaay baax bu la neexee wax jigéen tudd ñu baax ku sa yaay bon na ñi moo wax ci jigéen ñu baax ñi dara ndax soo ci waxee ñu ne waaye nenu dimbale xanaa moom xamul ndeyam waaye fanweeri at ak ñett nga génn ko ci dundu benn nit mu dund ko ñu defee ne dund na junni ndax taxawaay ndax jaamu yàlla ndax jàngal quran ndax fonk maam maam Mor Anta Sali ndax fonk taalibe ndax fonk daara ja ndax taxawaayam itteem yépp loolu la kon yàlla war na koo mën a fayee bis bu toll ni bisu poroxaan fu ne doom aadama di fa jógee di ko fekki foofu mu tëdd kon jigéen ju war ngaa ñaan war a xare ni maam jaara xare ak ni mu taxawee ba am li mu am kër maam Mor Anta Sali Mbàkke loolu mooy jàngat waaye bul ñëw rek tiim ko naan yal na ma yàlla fajal sama soxla ci barke maam jaara da nga ne waaw kii di jigéen may jigéen mu xare ba am bis bu toll nii man est-ce que lii mën naa ko am nga ne ah, bu ma amee ku mel ni Mor Anta de te ma taxaw taxawaay bu mel taxawaayu maam jaar de mën na am bis bi danaa ko mën a am waaye déedéet. Mor Anta yàlla la doon ut jur fa jaamu yàlla bu ñuy xaadimu rasul ñu ne Anta yow lu la yóbbu ci kër ga mu ne Chérif daam am oto bu rafet am kër gu rafet te bu may am doom Amérique laay amee doom France lay amee doom Italie lay amee doom Maroc laay amee doom yooyu la nuy tiitoroo étage laa dëkk immeuble bi laa loué 4x4 bii maa ko moom maa ngay lekkee ji restaurant tel wala maa ngay lekke hôtel tel loolu ngay tiitoro maam jaara di yeewu fajar di di soq bu tàkkusaanee mu soq bu fajar ya mu wal lay ne ca waañ wa ne ca tool ya de ca sàkket ya ne ca tawte ga ba yàlla may ko ci xaadimu rasul yemu ca mu wis ko may ko bisu boppam bu jotee ñépp daje fa kon kuy jigéen war nga jàng ci ni kii di jigéen la yàlla moom may ko ci Sénégal bis bu toll ni ñépp wuti poroxaan ndax benn jigéen kon war na maa góor lu ma itam lii kat la journée xaw ma de la femme xaw ma lay jëriñ loolu lay jëriñ njàngat yooyu jël ñu mel noonu nga jàngal leen cër yi leen yàlla may ti politique taxul fii ñaari jigéen joo fi gis mu am fi cër politique a ko may politique rek di politique di politique ba siw ca politique ba di politique di am ca kër di politique di politique ba am ca oto fooy mujj audit ya rek audit ya rek ca politique bu ba siiw ca auditeurs ba siiw rek waaw mam maam jaar na ci maam mam Anta Sali dafa am bis ngelaw li daane sàkkitu maam Anta Sali maam mu xiin nag mam Mor Anta xam nga dafa am lu xale yi xamul cëgg xamu leen ko ngegis garab la dañ koy xànj mag ñi bu jotee dañ koy defer ci noor bi def ko ay ay rouleau denc ko bu nawetee dañ koy xooj ti la ñu takk sàkket yi ngelaw lii daaneel maam Mor Anta gas bant yi suul ko jël sàkket wi taf ca woo maam jaara ni ko kaay jàppale ma ma takk sàkket wi jigéen de mu ngi mel ni tay yow shérif ool la rek ne la kaay yow euh, euh, germaine defal ma lii teel ma sàkket wee baa defal ma nag nga ne ko yaa ngi may bëgg bett de yow xanaa xamus yow nag may tuutal man ak sàkket maam jaara téyel ko sàkket wi maam mor anta dugg pour waaj génn taw bi soob mu ne naa xaar ba mu sebeti xëy na jaaraa nga néegam bu sebetee ma ook fala fanaan te te xam nga taw nawet di du sebet day cepp-ceppa rek maam jaara yére yi mu sol mu ngi tooy xib tafu ci yaramam ngelaw lu bëri doole loolu bu ñëwee rek xëcc sàkket wi mu xëccaat sàkket wi taf ko ci xer bi ne ko liggéeyu Mor Anta bi sàkketew wii du xëy mu ko fekk mu laalaa suuf moog moom moog moom ba bët ba ca fajar ga bi maam Mor Anta Sali bi mun taw bi dalee mu génn yem ci maam jaar daa def ko ni kii kan la mu ne ko mën a jaar mu ne ko looy def fii mu ne ko yaamal noonu ma téyel la sàkket wi di da nga koo fàtte mu ni ko jaara taw bi fële la fekk mu ne ko ah waaw yaa ni téyel ci neewoo ma bàyyil taw bi yàllaa ko yebal pour mu taw Mor Anta ma yebal pour ma téye ñaari njaboot yu daje rek lañ di def seen ndigalu kelifa taw bi yàllaa ko tawloo jaara Mor Anta ko tilo na taw taw ma téye sama téye keroog la ko maam Mor Anta ne ko yal na yàlla may jaar ku ñëpp ku ku ñëpp téye ko téye bu mu ko bàyyi loo jur yal na ko yàlla barkel defe naa ne xel xom gee la fa taw te ci jamono Sëñ Saaliw wax naa ko benn Baay Faal daf ne ma man de suñu taw bii ñu tawte xel xom ma ni ko tawte ba maam jaara tawte woon maam Mor Anta Sali ñaanal ko ca moom la ko yàlla fayee ngeen di tawte ci tooli sëtam yi kamaata diinu tuddaanu ku ne na nga leblee ngay fayi ko ku leblewul dara doo fayu dara ku deful lu baax doom tus ku def lu baax am lu baax kon nag bisu poroxaan jigéen ñi nañ ci defum njàngat seet jikko yi ci maam jaara seet jaar-jaari maam jaara seen njàmbaaram seet jaamu yàllaam seet sellalam ci fan at ak ñett mu tabax ci li mu ci tabax am ci ku toll ni xaadimu rasul mu tabax li mu tabax ak fi mu dugg xam nga ne maam maam sëñ Tuubaa fi mu jaar ci géej gi ak Tuubaa bi juróom-ñaari at ak lu topp mu dellusiwaat Tuubaa Sénégal delluwaat Tuubaa ñëwaat njaareem nekk fi dund ba yàlla jëlee ko fi te le tubaab ba bëggoon amuñu ko bu ndeyam baaxuloon lii du am ndey ju baax daa solo jigéen ju sonnal góor def la mu war a def bu ëllëgee doomam du tumuranke ku ko nar a tumurankeel da ngeen di bokk tumuranke te moom dana génn ci tumuranke ga moo tax bu ñu ne doom ja ndey ja gis ku mer rek ndeye waaye doom ja ndey ja mu naqari sa baaxul waaye ku ca bëgg sa baax kon loolu rek lay tegtale muy bis boo xam ne bisu njàngal la jigéen ju ko tim poroxaar rek na jàngataat sëyam jàngataat ni mu àndi jëkkëram jàngataan la muy def jeukeram ndax ndax mam mam maam jaara mas na ko def mam Mor antasali Sali jàngataan na muy dundeek dëkkandoom ndax mam jaar mas na ko def ay dekkandom jàngataan na muy doxalee ci bir keuram ndax non la mam jaar daan doxale suñ la ko waxee nga xam ko ci soppo kudul mom di murid di njabo di julit nga bëgg ko roy nak nga ne na fasiyene soppi doxin te dox doxinu jaara ndax ma am jaar fi mu jaar am li mu am li rek le bis yu mel non di jëriñ motax ñu ne az ziyaratu tudul ziyaara ziyaadatu la tudd mooy ak yokk sëñ Tuubaa nag àbb wenn way moom laa koy tëje Cheikhul Xadim daf ni la woykat ba waxoon laay wax zur man tuhib wa in shattat bika daaroo wa xaala min duunihi sahlunu aw aaro xaadimu rasul nee na koo sopp te muy dëgg fa mu ne lu mu sori sori sori bu bisu ziyaaram jote demal ziyaar yi wa zur kat man tuhib demal nga ziyaar ji ka nga sopp وين شتت بك دار دونت في نغا نيك فمو ني سورينا وعالم من دونه سهنو او ارو دونت اي مونتاج اكي خور اكي بين اكي خير غاي جار با ييغ سيغ توبا ني سيت كو سوب جار نكو كون نك لا يمنع انك نك بعد من زيارته ان المحب لمن يهواو زوارو سيغ توبا نينا بولا كين تري دم نك خادم رسول الله بولا كين تري دم mu sopp su bisam ñëwee waru koo manqué kon nag poroxaana nga ko sëñ Tuubaa wax di laa yem na an naka boodun nee na poroxaan li muy sori sori sori bu la teree dem boodun min ziyaarati innal muhibba liman yahwaawu zawaaru nit ka mu sopp daa war bu ziyaar jote mu dem seeti ko su nemmeeku jotee mu nemmeeku ji ko ñu ne az ziyaaratu nag tuddul ziyaara az ziyaadatu la tudd ca Cheikh El Khalil mooy ak yokku soo demee da nga fa yokk njàngat ne man Germaine man Anta xoolal may jigéen xoolal ñëw fekk jigéen ju tëdd fii fanweeri at ak ñetti laam riir mi yépp moom mu tax waaw moom nu mu def ba am ko ñu ne leen lii la def nga ne danaa xare man Germaine ba jur ba ba am def li kii def yàlla mën na maa may doom ju baax parce que ku baax rek am solo lu baax rek am solo kon nag bis baa ngoog laa yem na an naka boodun min ziyaarati sëñ Tuubaa ni ne sori ga bu mu la teree dem dama rek ndax innal muhibba liman yahwaahu zawaaru nit ku nekk nga sopp ah nee na nag bu bisam jotee nag ñëpp war nañ la faa gis ñu xam ne sa cofeel dëggu la kon bisu maam jaaraa ngoog poroxaana ngoog alxames gi ji ja ci ji ñu ne incha allah di bésu poroxaan ñépp waaj ko ti dem ci ziyaar ba defe naa alxames bi incha allahu mooy poroxaan kon na ko ñépp bàyyi xel waaj dem comme ni ko sëñ Touba waxee nit ku mu sopp bisu ziaru joteem na dem nembe ji ko kon nag poroxaana ngok loolu la ci seen TV jëloon ne nañ ko defal ñi nga xam ne ñu ngi waaje ziar bi bugaan ne nañ ko ci def waxtaan ci jigéen ñi ndax mu soriwul ak journée de la femme ñu man koo jëlaale muy seen jàngat ñu boole ko li ñu fas jàngat fas yene roy ay jikkoom ak fa mu jaar ak borom këram ba am ci ku baax ka tëdd Touba ba tey yéen ñii ku ci ne ku nuyu sa morom sujjóot ci loxoom baa sa portable loo ci def ka xasida ay woy sëñ Tuubaa moom nga ci def sa sonnerie looloo ca ne kon war ngaa xam ne jigéen ji def na la mu war a def yàlla fay ko lam ko war a fay kon na jigéen ñi góor góorlu waaye na góor ñi góor góorlu na uh, nu mu tuddati at tayiboona li tayibaati wa tayibaatu li tayibiina yàlla nee na góor gu baax jigéen ju baax mën nañoo jur lu baax kon nag jigéen ñi bind baa ngoog góor ñi bind baa ngoog taxaw leen taxawaayu maam maam Mor Anta Sali waaye bu kenn jigéen ñi nañ doon maam jaara ba pare doon ay firaaw na ñun góor ñi bu boobaa jigéen duñ mën a jur ku baax jigéen dañ koy jàppali ci sëy waaye soo mel ni malakul mawti ci moom du mën a def lu baax kon na góor ñi doon moor Anta jigéen eh, jigéen ñi doon maam jaara busa su ko defee ñu mën a am xaadimu rasul baa ku mel ni xaadimu rasul baa ku xaw a mel ni xaadimu rasul baa ku baax kon loolu moo doon waxtaan wi ngeen jéggal ñu li ñu amoon ci waxtu wi jeex na loolu moo nekkoon waxtaan wi jëm ci wàllu poroxaan ak soxna maam jaar ak suñu am moor anta sali ak meññent mu tedd mi ci jógee muy xaddimul Moustapha kon nag jeudi incha allah la poroxaan na ñépp waaj jublu ci poroxaan seeti soxna su tedd soosa jàngati fa fekk fa itam ay njabootam jàngat ci ñoom kon ñu jox leen daje incha allahu taala ba ëllëg ci waxtu wi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu